institutionnel amuñ problème mu état amuñ problème mu amuñ problème mu démocratie le seul risque pour le président Bassirou Diomaye Faye c'est une perte temps te ñooñu bu toppee il va perdre du temps la constitution américaine date de 1789 et les américains en sont toujours à la première république elle n'est pas parfaite mais elle est devenue avec le temps Angleterre bi ñuy coow la mère des démocraties amul constitution c'est des traditions que tout le monde respecte problème bi ñu am Sénégal nag mooy loolu. avec un rituel républicain boo xam ne euh, américains yi xam nañu ko mun nañ la ko réciter cœur par cœur. waaw mais loolu nag pour pour pour Sénégal ma réciter cœur par cœur les institutions ak les traditions damay wax souvent Sénégal am na traditions électorales mais li ñu manqué mooy de traditions démocratiques qui ne sont pas encore assez fortes. constitution américaine 1789 ba léegi c'est la même constitution qui régit les États-Unis Angleterre les textes qui régissent encore l'Angleterre remontent à Guillaume de Normandie et à Jean Santerre à Jean Santerre c'était 1200 ba léegi et li may wax souvent pourquoi c'est une perte de temps l'histoire montre que amul rapport entre réforme institutionnelle moderne des institutions ak efficacité économique la France a fait la révolution française couper la tête mais anglais ñoo def la révolution industrielle Ce sont les Allemands qui ont fait la révolution industrielle. C'est le Japon qui a fait la révolution technologique avec des versions millénaires. Donc c'est une perte de temps. li ma doon wax suba am na ay indicateurs boo mënee def transition en une semaine def élection en moins de trois semaines ça veut dire que le truc est solide boo xoolee fii le PDS le PDS opposition légale qui saisit l'Assemblée nationale def benn procédure ñu dem conseil constitutionnel ko président jël décret quand tu vois le dialogue des institutions là que nous avons les trois mois que nous avons vécu en termes de sciences politiques ces trois mois extraordinaires qui montrent quelque chose de fondamental que Sénégal nous avons des institutions solides et les institutions c'est quoi c'est lutter contre l'arbitraire individuel ça veut dire c'est ça les institutions nos institutions sont solides on a un conseil constitutionnel solide on a une assemblée nationale qui fait son que warul perte temps ci institution yi warul perte temps dans des dans des concertations euh, autour de la situation de la justice est-ce que da ngay conforter Ousmane Sonko euh, qui lors euh, de la rencontre euh, bi Bassirou Diomaye fay am euh, avec les membres de la coalition Diomaye 24 mm. disait que réew mi dafa nekk situation bu métti métti xam naa ne il fait référence Euh, à la situation économique. ndax nekkuñu ci crise politique. waaw mais comme ñoom nee nañu si dañu nekk situation bu méttee métti nañ consacrer leur énergie à la question économique nañ xool par exemple les gens de la fintech la pour man li may wax souvent quand dans mes écrits il faut chasser les juristes du temple il faut que les euh, les marchands là les gens qui la valeur la richesse les emplois il faut ñu teg leen au centre du système. donc da nga diagnostic bi. que non c'est-à-dire que c'est leur opinion mais li may wax man depuis des années li may wax Sénégal am problème politique Sénégal problème économie la am c'est-à-dire que sànq li may wax chaque fois bu président américain ñëwee fii Dakar taxaw ñu woy Sénégal vous avez démocratie bravo dañ ko war a dépasser li ñu li mu li ñu war a def mooy. on leur a donné suffisamment nu ñuy def nu ñuy def mais bien sûr mais en matière de démocratie li xew fii trois mois mais ñun on on a des leçons à recevoir de personne en matière de démocratie en matière de en en matière électorale mais américains yaa ngi fàttaliku bi ñu def seen élection lu ñu defoon ils vont recompter mm-hmm. américains dañuy dem élection dem contentieux xoolal Hillary ak Trump xoolal euh, kan la woon ak ak Al Gore Al Gore George avec George Bush fils <laughs> li may wax dañoo am le complexe nègre ak ñi nga xam ni ñi may wax les rentiers de la tension ñoom tension électorale moo leen di arrangé parce que tension électorale Trump ak tension politique parce que le des nations c'est ça veut dire que c'est de gérer des incertitudes et chaque fois qu'il y a des problèmes on peut pas c'est pourquoi je y a pas d'institution parfaite